soxna si nga xam ne ñi ngi ko fekkee ci dëkk dëkkaat bu tudd kër Makumba Jóob côté Tiwaawan mm-hmm. femme bi nag dafa réeroon ay mbokkam di ko seet ndax daf leen tàggu woon ni dafay dem benn réew réunion ay jaaykatu jën ay soxna war a am Tiwaawan nee ñu nag moom soxna si bi mu demee ba garage Tiwaawan wàcc oto bi lañ ko mujjee gis ah. defoon nañ sax ci réseaux sociaux yeeg yeneen ay annonce di ko seet pour laajte soxna si malheureusement nag dañoo dem ci benn tool gis fa koo xam ne dafa lakk-lakk bu métti lakk boo xam ne neexut a identifié mais dafa takkoon benn jaaro loolu tax borom këram identifier ko bi jaaro ne moom la problème bi nag mooy ñu njortu ne moom soxna si dañu ko faat ba pare lakk ko. di ko maquiller noonu daal di koy lakk. loolu la njort. libération nag nee na fan yële ci ginnaaw tool boobu amoon na lakk bu metti bu fa amoon. te ba. waaw amoon lakk bu metti bu fa amoon laaj bi nag mooy femme bi tàggoo woon réunion ca Tiwaawoon. lan moo ko jagat jagatee ba kër ma Makumba Jóob ci tool yi. te tool ya. ba ñu koy def loolu ba di ko faat. Alo hmm. uh, uh, oh, uh, tam yeme na de. na yeme na de dëkk bi. yow da ngay tàggoo. Idrissa Tamba ñu gis la Kédougou. Idi waaw waxu suuf la xaar ba pare rek wallaay. Ah, sa waxtaane li yaa ngi Hmm. identifier nañ ko borom këram moo ko jarabi, ndax jaaro bi mais sur place lañu ko denc. Hmm? parce que mënatuñ ko woon euh, fenn. ni ni mu mel la état bi état bi ñu fekkee koor bi. waaw. non loolu fa mu am enquête de. ah ubbi ci enquête kay. il faut ñu ubbi si parce que tamit fi nga tàggoo ak fi ñu la gis. Hmm. Ah, anam gañ la fekkee.